nag di àddu ci ñetti milliards yi nga xam ne rek dugal nañu ko ci ab sanctuaire bu ñuy tabax foofee ci Popenguine nag mu bokk ci programme yi nga xam ne rek état bu Sénégal daf koo taxawaloon jagleel ko këru diine yi moom njiitu réewum Sénégal Dominique Ndong mi nga xam ne rek moom la fa archevêque tegoon ngir muy saytu liggéey ba nag daal di fësal nag mbégte gi mu am ci li nu mel monseigneur Benjamin Ndiaye nag ma ngay ñaanal njiitu réew mi tey jii ci samedi ji la ñu fas yéenee amal nag lu jëm ci wàllu inauguration bi ñu des nag ci wàllu infrastructure ak yéenekaay bii di Le Quotidien àddu nag ci ay liggéey nii ba fii may waxee ak nguur gi sumb na ko te mënul fexe ba ñu yeggali ko askan wi nag jamono ji daal di mer bay futtu li ñu bëgg rek mooy yooyee liggéey ñu jeexal ko ngir mën a jàll ci leneen Walf Quotidien moom ma ngay xëy di fësal ay koppar yoo xam ne rek ay directeur ñu ngi koy pasar pasare ci jamonoy campagne bi yër leen boobee yëglekaay beneenu bi yéenekaay daal di koy feelu ne ay politiciens yoo xam ne rek seeni xel dafa dem loolee nag lool observateur xëy fësal ci xëtam bu njëkk ndax nag ba fii ñuy àddoo am na ñoo xam ne nag am nañu jafe ngir wutal tur seenub wala seen coalition jonn mbaa idi 2024 jaawo ak yeneeni candidat 2024 rek la dégg yéenekaay bi ne parti yi kay jamono ji nag ña ngay souffrir bu baax a baax laas yéenekaay nag ma ngay àddu di wax ci jàmm ji nga xam ne rek moom la ñuy séentu ci diggante président Macky Sall ak Abdoulaye Wade yéenekaay beneen di enquête feelu ko nag moom àddu jëmale ci élection 2024 ak amende bu toll ci milliards yu ñu gàll ci ndodd kii di Karim Wade journal bi nag ne fi mu électorale ci Karim Wade nag dafay aajo ci procureur bu parquet financier bi laaj bi nag mooy ndax libéral bi mën naa ami gàllankoor ginnaaw daan bi ñu samp ci ndoddama mu toll ci 138 milliards waaye bu ñu sukkandikoo ci article L28 bu code électoral amande boobee nag mën naa bañ a doon gàllankoor ci candidature bu Karim Wade ndax fi mu toll nii nag déposé na ab caution te am na ay député ngir lu jëm nag ci wàllu parrainage yi Sud Quotidien ci boobee jamono di fësal beneen xarkanam gu ñu yéenekaay bi ne ci jamono ji nag muy débat démocratique ak i dialogue politique lépp la ñu daal di teg ci suuf kàddu yi nga xam ne rek daan nañ ko fa dégg mu jëm ci wàllu ŋàññante tuuma yoo xam ne rek du am mukk ay leeral ak i nag règlement de compte loolee lépp nag yéenekaay bi ne gisee nañ ci daal ne législature bu mujj bi am na beneenub xarkanam gu mu wone ci assemblée nationale te mooy démocratie fës na fa loolo oustaz Oumar Sall daan nañ ko juróom benn weeru kaso yum dul tëdd Vox Populi yéenekaay bi ne procès bi doxoon ci digganteem ak Tidiane yi Omar Sall ma ngay jéggalu waaye terewul nag ñu gàll ay daan ci na nag li waral mu yëkkati woon ay kàddu nag jëmale ko ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci atum 1997 ci biir yëglekaay bi muy xamle ne nag kàddu yi mu yëkkati woon di ŋàññ li nga xam ne rek moo di wasifa ne ay bidaa la amut kenn ku mu ko jagleel yéenekaay bi di Les Échos dikk ba tey ci lu soxal nag kii di oustaz Omar Sall mu ne ma ngay jéggalu nag moom mi nga xam ne juróom benn weer daanaka la ñu daan ci kaw ndoddam yoo xam ne du ko tëdd ginnaaw ba mu taxawee ci kanamu procureur di jéggalu képp koo xam ne rek gis nga sa bopp ci kàddu yi mu yëkkati woon l'info yëglekaay ci boobee jamono nag ne professeur Moussa Baldé lànk na kandaare ci càkkutéefu ñii nga xam ne rek dañoo ŋànk wàllu jàng meeg jàngale mi ci tàmbali li nga xamante ne nii nag moo di jàng meeg jàngale mi ci biir université yi mu ne jamono ji nag université yooyee nag dañuy wëy di wëyal enseignement en ligne yi nag jumtukaay la loolee bu yembee nag daañu mën a sóobuwaat ci jàng moomee ci biir daara yi waaye ba fii may waxee ak yéen nag njàng mi moom dañ koy tegandi ci suuf ba ci kanam kanam bés bi le jour daal di dikk ci ab dossier bu yaatu bu mu jagleel nag ñi nga xam ne amuñu cofeel ci seeni wayjur yéenekaay bi nag ne kii moom ñàkk am cofeel ci wayjuram moo waral nag mu ne bëggula am dooma docteur musa Sow di ab psychologue di ne ci biir yëglekaay bi ne li gën a metti nag mooy doom ju amul cofeel ci wayjuram ci boobee jamono nag libération ne lu metti moo naroon a am ca diwaan bu Ngor